Ahmad ba jël ñaari turam muy Rauf ak Rahim tuddee ko Sayyiduna Muhammad te bi yàllay tuddee yonante yàlla Muhammad Rauf di tuddee yonante yàlla Muhammad Rahim xaw na jur coow sax ci biir malaaka yi parce que malaaka yi mënuloon muñ ñaari turi yàlla yu am doole yooyu yàlla di ko tuddee jaamu nit waaye keroog bi nga xamee ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na ca Taïf ñu boole ko ak xale ya xale ya sàmm ko sonnal alaaji naka la ko xale ya naka ko wéyee ba ya ko jam ak da ko xeer كلنا كبير ويا بغي أكثر كبير يقول أكثر رفيق بجميع ميت درد دول مفتفى جنب الميت دول بكل جوتا كل مبرقوه وموتة تسمى رفيق bu mel ni alaaji nee na wéykat bi nee na bu yonante yàlla Muhammad demee ñu boole ko xale yàlla wax boole ko xaj ya boole ko dof ya ma ne ndeysaan wéykat yi dañoo baax ñoo bëgg nit ñi dégg waaye benn xaj xéewal yonent yàlla Muhammad mu xaalul xàkkal mu xaal ak ci xéewal Seydina Muhammad mooy woy wi daf ko wax ngir ñu bëgg a xam ne yëpp yi métti woon na waaye xaj ak li xaj làq ci ay ngëneel ak li xaj làq ci ay maqaama maa ngi jéggulu te ku turu xaj ñu waleen di woowee tey jii li mu am ci ay ngëneel bëri na ku doon tànn bi te amuloo kaj laajte na ci jikko loo xam ne bëri na ko rono daan bi loo li rono woo kaj yor na jikko bu gëm moomin bi ñuy wër mën ci biir xaj tasawuf bi ñuy wër sufiyanke kaj yor na ko miskiine gi ñuy ñaan yàlla ne yonent bi ne yàlla yàlla nga ma boole ci zumratul masaakin mi ngi ci xaj yonentu maqaama yonent gi ñuy wër yàlla def ñi bëgg a wax na ñu jël xaj yi ñuy xiir yonent bi loolu mënul nekk laaj ma yéen jikko la xaj yar na ci jikko yi nga xam na xaj yor na ko xaj ko doylu la bokk na ci jikko yi nga xam ne xaj yor na ko xaj xañaanut bokk xaj doy na ko xaj ko la bokk na ci jikko yi nga xam ne xaj jar ko xaj ko respecté sangam la te boobu bëri na ñu fi nekk yoo xam ne ñeent yii ma bu amee ñett yi benn bi dana leen laaj ma ñàkk xanaa ma xaj xaj fu muy fanaan bu ñëwee fekk woon ma ko xajam du ko xiiru du ko dóor day dem bàyyi ko ba dem tëdd feneen fa yow nag foo toog sax dafa jullee sax boo fekkee nit sax da nga koy wax puusal maa bi boo ci toogoon léegi jóg bu ci sa bàyyi toogoon da nga see bàyyi dara ne ko man maa fi toogoon xaj lu mu neex neex bu fi Mouhamed Xadax jógee mu bàyyi ko fi dem toog feneen ñaar benn ñaareel ba nee naa la xaj ku doy na la yéenay mën a ànd dem ci àll ba rëbb mu rëbbal na ba pare moom xaj mooy daw daw bi sonn ci trop indi la lekk gi jox la nga lekk ba suur nga ko benn benn benn yàq. mu koy lekk mel ni moo ci ëppale te ci gën a tuuti bu subaa nga ne nañ fa diwaat balaa ngaa jóg mu jóg di la wër di la tàllal làmmiñ di li ñuy wuti moo ci ëppale fekk na ñëpp ngir nga béy loolu beneen tey ku doom ñeent rey ganaar ko xeel yi bu subaa reer ganaar jox ko xeel yi bu ñu nee gannaaw suba gaa boo ne ko kaa reyal ma sa tur nga reyaat na muy rëbbi mu la indil la taw nga lekk dara jox. nga koy sànni ñax mi koy day du tax mu laal sa doom du tax mu laal sa ganaar du tax mu laal sa dara kon xaj ko doy la xaj ko dégg ndigal la lu mu sedd sedd sedd gannaaw tëj nga sa kër ne ko xaar ma ci bunt bi lu sedd sedd bu mu dugg si biir fekk si la te nga xaaroon fañ ko kon nag ku mel loolu jeex na te du topp ku dul boromam te bëri na fi tey ñu nga xam ne ñu ngi topp ku dul seen borom ci góor ak ci jigéen kon nag nga xamante ne ki ñuy wax ne da tiiru kenn yonente yàlla Muhammad ni ko xaji xamee est ce que nit ñi xamee nañ ko ko ne xaji xamee Seydina Muhammad bu ñu leen doon xiirtal ci yonente yàlla Muhammad da leen sànni ay xeer da leen rendi par benn benn duñ mës a xiir yonente yàlla Muhammad kon mooy dañ koy béy seen ndaxte la rek waaye du xaqiq dof yi ren bokkuñ ci benn dof bu sànni Seydina Mohamed Seydina Omar Foutiyou Tall ba mu demee Irak Bagdad dafa wàcc si biir ci tefesu Bagdad jàkkaarloo ak benn dof moom Omar Foutiyou Tall ba mu yeggee ci dof bi jox la ko dof bi ne dof bi nu ma tudd a ne ko yow yaa ngi tudd Omar Foutiyou mu ne ko yow lan moo la daloon mu ne ko li ñuy wax dof mu ne ko ana dof ga mu ne ko wér na mu ne ko ci kan la wéree ko ci yow Omar Foutiyou Tall. waaw bu ñu jëlee Omar Foutiyou Tall ci yow Omar Foutiyou mën a jàkkaarloog dof dof yi xam ne mooy kan nekk Seydina Muhammad. kon yonent yàlla moom dégg nga dof da ko jàpp kon wóor-wóor dañ koy war ak du xaqiiqa man maa la ko wax. kon yonent yàlla Muhammad moomu nee naa la lewetal nga keroog Raouful Rahim gi ko yàlla yónnee gi ko yàlla tuddee. ba nga xamee ne Jabraïl mer na ci tur yi muy bëgg a bëgg Seydina Mohamed parce que ñoom dañoo fiir ci yàlla mi ngi mel ni yàlla mi ngi mel ni nga amoon juróom-ñeenti ñeenti soxna nga jël sa ñaari soxna yi nga ne yëbbal naa ko kenn ñi la bëgg ñëpp dañuy fiir yàlla juróom-ñeent fukki toom juróom-ñeent la yorul doom yorul soxna yorul dara loolu rek la am moo taxoon pànkam yàlla ma Abdul Xaadir Jeylaani ne man li ma am yàlla amu ko ñi bëgg koo rey mu ne parce man am naa doom ak i jabar te yàlla amu ko sama gouvernement moo gën a màgg gouvernement yàlla waaye yàlla am ay turam jël sa ñaari tur di a di Rahim cappal ko Seydina Muhammad malaaka yi benn malaaka mënu ko digérer mënuñ koo muñ waaye keroog biñ ko booleeg xale yu ñàkk kersa yaag mag ñu dof ñu feebar ñoom nga xam di koy taj hmm. mag ña sànnante ko def ko li leen neex ba fi mu malaaka yi ñëw di waxante ak moom ci kër sabab yëpp miin nañ ko waaye li ma ci soxla la nit ñi defe miin ba ñëwee wax ko liñ ko bëgg a wax ne ko dañ leen alak ñoom ñëpp ñu dee moom yonente yàlla Muhammad mu ne yaakaar naa yàlla génne si ñoom ku gëm Jabrail dafa wàcc ne ko kaay tey ma wax la denc bi la yàlla dencaloon ne ko yow yonente yàlla Muhammad yàlla jëlul tuddee na la ñaari turam ñun ñëpp ñu fiir tuddul waaye billaahi yaa yëngatu ne ko métti bii nga toll yonente yàlla duwul tolloon na fi. keroog ba ma koy wannu daf ne man na yàlla wàccee ndox na leen alak mu ne ko man maa ubbi bunti asamaan yi maa ubbi bunti suuf bi mi di génnee ci suuf ndox mi di wàccee si kaw ba alak leen ñoom ñëpp ne ko bunti bii nga toll yonente yàlla fa tolloon na ci keroog man ne ma leen def mooy sa àll ngelaw laa indi. da leen fële ngeen jërëm yaay naaw nit ñay naaw mën naa leen xalaatee ne ko bunt yi nga toll feew ko toll mu yónni yàlla moo tax tolloon na ci. lan ma mooy naa xotti géej gi moom mu jàpp si ma lebal ay nitam ne ko bunt bii nga toll yónni yàlla ngay sax tolloon na ci lan ma wax mooy naa ko yóbbu mu yëg sa kaw mu mucc si coow li yow nag am nga tolloo nga ne baal bi jaay yaay yow yaay rahim moo tax yàlla ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum ne nag jàkk bil mu'minina yow yonent bi raufun rahim kon yàlla sellal na lebet ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sellal na ba léegi xam-xamu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sellal dëggu yonent yàlla Muhammad ne yonent yàlla Muhammad ku dëggu la bu waxantu te wa maa aataakum rasulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu waaye bi mu seetlee làmmiñam nag mooy wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa ba léegi yàlla sellal na lépp yonent yàlla Muhammad tëjee ko ko ne wa innaka nag la ala xuluqin azim nekk yow ci mbaax ci rafetal ci jokk mbokk ci wëllëre ci wax dëgg ci defar ci defare ci julli ji ci woor ci asaka lépp la ca gën a kawe yow foofu nga toog yow sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la ala xuluqin azim te yi yàlla sellal yonent bi nag bul yaakaar ne yàlla dañ ko koo ñaanu toon tuddal ki nga ki la gën a neex ci première ci rôle en dam muy yonent yàlla nu woon na ko yàlla إن ابني من أمي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل خير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين لأنك يا لكي سبب لك تمني يراجع لك تبقوا لك يا لك أي بما الله يتلف يونيكم lii sa du sa problème waroo koo réglé man maa ko war a réglé soo dugg duggal ci sa li sa yoon nekk balaa ngaa bokk ci xam ne dañoo réer te ñu safara jahannama yàlla Muhammad mu ba fa tolloo yàlla daf ne ko wala rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum mhm. ne koy ñoom duñ gën lu dul li la neex nga leen di àttal ñu koy o ku ci bañ nañ ko àttal kooku naa ko safara jahannama xoolal bi kii ñaan na lii kii moom ñaaroon ñu ne ko yow lu la neex defal ñoom ñaar duñu benn yonent yàlla Ibrahima nga xam ne su ko yàlla tuddee tagg na ko ci alquranu karim am na alquran wa Ibrahima allazi wafa am na alquran wa isabtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna pour yàlla tuddee yonent yàlla Ibrahima tagg na ko am na alquran wa taxaza allahu Ibrahima xalila am na alquran is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamina loolu yëpp ay taggalu yàlla di tagg yonent Ibrahima. waaye li Ibrahima ànd ak tagg yeeg yëpp bu tagg yi neexee ba mu neex mu ne ko yàlla wajaxal ni lisaana si dëkk bi aaxiri ne ko damaa bëgg ñii mujj ñëw yàlla nañ may tudd su ñuy nodd di ma tudd su ñuy liqaam di ma tudd loolu alquran la du ay wax du ay hadis du ay téere siira alquran moo ko wax Ibrahima moo ne ko wajaxal ni lisaana si dëkk bi aaxiri yàlla bokk ci ñii mujj tudd ëllëg yàlla tontu ci xaar ba yonent yàlla Muhammad ñëw mu ne ko yére bii de Ibrahima moo ma ko demandé woon jasneer bii bëggoon na ko ban jasneer la mooy naa fexe ñëpp di ko mujj tuut waaye yow gis naa ne loolu yegg la ci yow jëlal ma may la ñaanoo ko waaye may naa la ko ne ko yow yonent bi moo taxoon naa la ka si rek yow yëkkati naa ko tur kuy nekkaam dana la tudd ku la bañ a tudd ci nekkaam jaratul muy julli kuy nodd dana la tudd ku la bañ a tudd ci nodd jaratul muy julli ولا بل تتورط ليالى قبل كل مسلك مع قدر رسول يجبن بيا ليونس جمع كل مقتبل جبير بالجن وقتتغير أنت بير يقل لك وكاي رسول الله جمال إبراهيم بودين نعمة جمال تفهم ما يوم أمنا بلن نعم بونا نعم لك يالك ولا تخزني يا ما يبعثون ne ko bis bi ñuy dekkal nit ñi seen i mbooloo wër leen yàlla yàlla bul ma gàccal xoolal yonent yàlla Ibrahima di naan yàlla mu bañ koo gàcceel ci bis boobu. yonent yàlla mohammad nag moom ñaanal si wut ci alquran moo ko rek ne ko yow ma laa si laahu yuxzi llaahu nabiyya wallaziina aamanu ma'ahu ne ko bis boobu yàlla xalaatoo cee gàcceel naa mohammad ak yi ànd ak moom xoolal moom kii moo ñaan bi nga gàcceel kii ñu ne ko yow buñ la gàcceel loolu yonent yàlla ak Moussa Moussa moom. daf na yàlla rabbi ishrah li sadri daf na yàlla rabbi arini anzur ilayk daf na yàlla rabbi yassir li amri yàlla sa jëmm ji yàlla nag ma may bët man la yonente yàlla Moussa yàlla na ko yow moom amul sax ma naan la xaaral jantaraan yi léegi laa la koy wax dañ maa bëgg gis Moussa ne waaw bu dëgg waaye doo ma gis xoolal li wax bi jeex na comme que engrais sëñ bi gis la laa bëgg a dee doo mën a gis wax ja jeex wante yonente yàlla ma man nekkul fi di ko wax yàlla may ma ma gis la. yàlla jékki-jékki rek ne subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu ñu ne ko pour a mu ne leen nuriyahu min ayatina kii moo toogal ne damaa bëgg kii ñëw jël ko ne ma kaay ñëwal ñoom ñaar bu leen seen dëkk la Moussa ne ko yàlla kon comme loolu la yonent yàlla Muhammad moom nekk fa di waxante alquran moo koy rek ne ko alam nashrah laka sadrak xanaa du man yàlla maa ubbi sa dënn loo koy ñaanati yow bul bokk ak waa ji kee da doon naan yow may naal moo tax saar boobu ku koy jàng jëpp tëla wala njël wala dund yàlla dina la ko yombalal parce que boo koy jàng yaa ngi bëggal Seydina Muhammad kon nag loolu moom def naa ko ak nuyoo bi mu des mu ne yàlla yasir lii amri yàlla moom yombalal samay mbir des ci def 92 li mu Seydina Muhammad mu ne ko yàlla yàlla nga ma yombalal samay mbir man yonent yàlla Moussa yonent yàlla Muhammad newul sax di wax daf ne woon nu yàlla moo koy rek da ko sabbi isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى وجعله غثاء اروى يو يونتبي من يالا سن نكو يو كفرات بكن الا ما شاء الله بكن يالا موم انه يعلم الجهر وما يخفى موسى مولى وما يسر لي امري يالا مو يومبال سني مير يوم وون يسيرك لك اليسرى مير يفنا كو يخفى لي يوم lii tey Moussa amatuñ ko lii Insa amatuñ ko yonent yàlla Muhammad rek moo ko yàlla nañ ko jëriñoo balaa may ñëw ci Insa képp ku ne ci mbooloo mi nuyu ko nga dellal ne ko baal ma xaq ndax yàlla yombal suñuy yëf. te góor ñi nuyante na jigéen ñi nuyante ànd ak jëm loxo ak